ministère de l'enseignement supérieur nañu dajale donc suñuy borom xam-xam ci fànn yëpp parce que jàngoro bi ni mu ñëwee ci fànn yëpp dañ koy xeexee. booba nag ñu toog xool ne dañuy def benn observatoire benn taxawaay bi nga xam dañu am taxawaay bu nga xam ne dañuy xool ci adduna bi ak ci Sénégal naka la ak mbir yi laloo pour ñu xool naka lañ koy mën a jàkkaarloo moom. demee ba ci giir ñu gis ne am nañu ay ñoom boroom xam-xam yooyu am nañu gis-gis yu nga xam ne nee nañ leen bu ñu leen jàppalee tuuti ci ñoom ci am-am dina am nu nga xam ne ci seen laboratoire de recherche dinañ fa def ñawal xam-xam bañ fa am créer xam-xam bu bees xool doxalin bu bees xool nan lañ ban taxawaay moo méngoo ak xeex feebar ñu ne leen kon léegi yéen ku ci nekk seen si loolu ngeen jël yónnee leen ñu projet yooyu ñu yónnee ñu projet yi projet yooyu xaw naa ëpp doole ministre de l'enseignement supérieur mais man jël naa engagement ne dinaa wut financement bi parce que ci ay milliards la mais dinaa wut ay financement ak ay partenaires yow développement yu nga xam ne euh, directrice financement de la recherche won na ne am nay ay partenaires yu nga xam ne tey joxe nañu même ay seen kàddu mais wane nañu même orientation yu nga xam ne dinañ ci jàpp parce que recherche tamit gis ngeen bu ñun ñu taxawee recherche amee résultat xaalis bi day ñëw mën na am xaalis bi mën na yéex a bañ ñëw mais bu résultat recherche ñëwee rek day leen di day xaalis te comme li suñu borom cher euh, laboratoire yi suñu chercheurs yi li ñuy def tey ñu ngi liggéey liggéey bu xaraj am nañ ci yaakaar ne loolu dinañ ñëw moo tax ñun ñu jël ne dinañ génne ci suñu budget propre ministère de l'enseignement supérieur de la recherche 205 millions 205 millions yooyu tey génn nañ ci ñaar téeméeri million ak juróom tey génn nañ ci juróom-ñeent ci fukk ak juróom-ñaar nga xam ne dañ koy jox ci projet yi nga xam ne tey ñun gis gis nañu ne ñi ko présenté ak ni ñu ko présenté na egg nañu ci étape bu nga xam ne dinañ mën a jàppale pour ñu commencer liggéey bi ci lu mu gën a baax